waaw euh, jërëjëf soxna si ci euh, laaj bu am solo boobu euh, je crois que li nga xam ne mooy avis bi nga xam ne moom la Sénégal yëpp di actuellement. Mhm. mooy désespoir bu mag a mag ak déception bu rëy rëy parce que le président de la République Macky Sall dafa am loo xam ne da ko mbébatoon tàmbali woon ko ñu bari amoon ci yaakaar nag mooy ba mu bàyyee sa troisième candidature. nga xam ne à l'époque lu mu mësoon tooñ tooñ réew mi dafa mel ni sax Macky Sall mësul tooñ réew mi ndax ba mu bàyyee troisième candidature am ñëpp jàppoon tamit di xaar que ni li ko dese woon rek mooy ni mu ko waxee euh, chanté ko fépp waa kawam tam chanté ko fépp mooy qu'il allait organiser des élections yoo xam ne pour la première fois moom du ci bokk te bañ ci dugal benn ndëgg sërëx waaye ndakate Macky Sall waajul parewul sax ngir bàyyi nguur gi parewul sax ngir def passation de service ci calme ci sérénité bi nga xam ne Sénégal moom lañ ko yàgg xamee euh, nga xam ne dafa bàyyi loolu ngir jàpp feneen ndax dem na ba xam ne fi mu toll nii sénégalais yi teg nañ ko pression boo xam ne sénégalais yi toll nañ foo xam ne loolu bu ko déclenché woon rek day nekk euh, la goutte d'eau de plus bi nga xam ne moom moo nar a transvaser mbir yi. mu mu bàyyi loolu waaye ndekete mi ngi préparer beneen plan boo xam ne daanaka troisième mandat sax moo koy tane boo seetee. Mm. ndax lii dafa nekk un précédent dangereux. xam nga li xew nii sa à danga koy analyser ci angle yu bari mais li gën a doy mooy lii bu jàllee tey ci réew mi maanaam dootuñu amati réew mu stable moom. jàll na kay moom leneen la ñuy waxat ci xam nga xam nga tey jii ba tey ñi ngi am yaakaar naan conseil constitutionnel di xaar décret bi est-ce que yooyu yëpp ñi ngi ci am yaakaar ba tey tamit di ci dundee yaakaar que nii dina revoir sa position dina dellu ginnaaw ci dogal bi nga xam ne jël na ko waaye bis bu jàllee ba aboutir mooy créer nañ un précédent très dangereux danse ce pays boo xam ne ce sera un mal irréparable donc Macky li bu def très franchement amul pour une fois Macky Sall def unanimité maanaam sénégalais yépp ànd d'accord nii Macky Sall lii mu def nii muy kilifa diine yi mm-hmm. muy ñi nga xam ñooy acteurs politiques yi muy waa société civile ñi boo gisee communiqué yi ni mu doon tawee mm-hmm. nga xam ni euh, Macky Sall tey dugg na ci guuta goo xam ne xamoo lu ko ci dugal waaye tey jii bis bu ci génnul dina dugal Sénégal ci ci ci ci ci ci njombe loo xam ne euh, vraiment du du baax ci ci histoire politique du Sénégal du baax tamit ci palmarèsam parce que quoi qu'on Euh, seen camp lu ñu doon wax rek mooy il a fait un bilan matériel donte le bilan immatériel moom moo n'en parle même pas euh, defu ci dara waaye la bilan immatériel matériel bi nga xam ne am na am na as néew lu mu ci doon góor góorgóorlu donte des na lu baree bari bari par rapport ak moyens yi ñu ko jox ak à dur bi mu fi bi mu fi bi mu fi toog loolu as néew li mu li mu jotal liggéey yëpp lii mu def ni tey day ñëw suul loolu yëpp suul jëfam jooju